maa ngi nuyu ñëpp kenn ku nekk ci turam ak ci santam dinaa góor góorlu ba juróomi minutes yin ma jox ma jéem cee yem te ku ne xam na ne gàttal yombu ma waaye nag comme ñi war a wax xaw na ñoo takku te journalistes yi dañu war a dellu seen rédaction pour def seeni montage kon faaw ñu gàttal wax ji nag jërul guddal tey bi ñu rafetloo li la ko def mooy leader allié du candidat Ousmane Sonko ànd ak Yewwi Askan Wi jàpp naa ni sénégalais yi rafetlu nañ ko ndaxte réew mi ñun ñëpp ñoo ko bokk ki nga xam moom leen jiital muy président de la république en 2012 ban koy fal kenn njortul woon ni 12 ans après coono bii sénégalais yi di dund nga xam ne tey koo xool dafa sëngéem ñëpp la seen xol naqari koo xool jaaxle na ci lu nar a xew suba ñëpp. jaaxle ci koo xam ne ñun ñoo ko jox sunu alal muy doxal jox ko sunu sañ-sañ muy doxal jox ko sunu kaaraange réew muy doxal jox ko sunuy loi ak réew muy doxal lépp mu mu wëlbati ko di ko dumaa askanu senegal kon nag tey bu ñu demee ba askanu Sénégal am ab leader bu tudd Ousmane Sonko ñëpp gis ni président Macky Sall depuis 2019 mu falu li muy def mooy fexe ba Ousmane Sonko du mën a nekk candidat en 2024 kooku jaaduwul kon nag lii xew suba lañ bëgg a wax sénégalais yi ban njëriñam suba bu benn sénégalais toog di tayle sañ-sañam ak moomeelam dañu bëgg sénégalais yépp génn tuuru leen ci mbeddi ndakaaru yi loolu lañ bëgg na sénégalais yi tuuru ci mbeddi ndakaaru yi na mbedd yi fees dell na ñëpp jubal ca tribunal cour de cour suprême ba nga xam ma ngay am ca corniche ba wetu hôtel teeru bi parce que foofu la mbir ma di xewe te audience ba audience publique la sénégalais yi am nañ droit dem fa kon bu leen kenn tere nañu bàyyi sénégalais yi ñu génn seen kër yi ku war a demander permission demander permission ku war a tëj sa atelier tëj ko képp kuy élève wala ngay étudiant na ñëpp jubal cour suprême à partir de sept heures huit heures na mbedd yi fees dell ñu jëm tribunal ba parce que procès bi ku nekk am nga droit dem fekke ko liñ ciy teg rek ñun mooy bu kenn toj bu kenn taal message bi sénégalais yi war a jox seen bopp jox ko waa àdduna bi mooy ñu tuuru ci mbedd mi wane ni le président Macky Sall bëgg a def kenn d'accord ci tàlloowuñu kenn tojloowuñu kenn parce que loolu lañ ñu bëgg a pousser pour def li ñëpp di njort te kenn du ko may li ñu bëgg mooy ñu àtte ci dëgg àtte ci dëgg nag sénégalais yi ñoo ko mën a exiger ña nekk ca tribunal ba gis ne mbedd yi fees na dell loolu mooy message bu foor bi mais suñu amee ay foyer de tension ñuy xeex loolu la président Macky Sall bëgg duñ ko ko may na mbedd yi fees del ñu jubal ñun ñëpp ba tribunal ba ñu yegg ñuy ñaan force de l'ordre yi bu ñu tiire benn force de l'ordre bu mu tiiree benn lacrymogène bu kenn jaay doole ñuy lancé nag un message au juge yi nga am ñoom ñooy àtte foofu lay tëjee juge bi nga xam ne mi ngi tudd Siré Ali Ba fanweeri at ak juróom ci ginnaaw waajuram wu góor Ali Ba moom la Abdou Diouf bëggoon na utiliser pour mu neenal candidature Ablaye Wade ginnaaw bi élection présidentielle yi 88 yi jàllee moom waajuram wu góor taxaw jël ay responsabilités am ne Abdou Diouf du ma neenal candidature Ablaye Wade parce que Ablaye Wade am na droit nekkaat candidat parce que xeexoo moo am mais atte ci dëgg teg ko ci yoon ba président Abdoulaye Wade amul déchéance bu nekk ci kawam pour mu bañ a nekkaat candidat en 93 kooku ko ko defoon mooy mooy waajur wu góor bu Siré Ali Ba mii nar a àtte suba waajuram wu góor wu tudd Ali Siré Ba moom moo defoon loolu kon leer am na solo ñu fàttali ko pour mu taxaw fa waajuram wu góor taxawoon Sénégal ñëpp tiit ne Abdoulaye Wade dina la nekk candidat ci ay élection moom mu jël responsabilité ne Abdou Diouf sama sama sama sama sama sama liggéey du ma ko du ma du ma ko yàqate sama carrière du ma ko yàqate ndax bëgg lu neex président de la république kon Ablaye Wade du ma ko teree nekk candidat donc li leen bëgg duma leen ci fekk si yow commissaire du gouvernement boobu moom moo tey moom lañ remplacé par l' agent judiciaire de l' la cour s' la cour de sûreté de de l' état kon nag tey yow Siré Ali Ba la sa waajuru góor defoon en 88. fanweeri at ak juróom tey yow la Sénégal gépp di déglu jëlal say responsabilité waxal président Macky Sall ak agent judiciaire de l' état que li ngeen bëgg duma ko nangu damay àtte ci dëgg dëggal li juge Sabassi Faye wax ca Ziguinchor ñu delloo Ousmane Sonko ay fiches de parrainage am bu ñu demee le 25 février 2024 Sénégalais yi àtte maa ngi leen di sant di leen gërëm wasalaam Merci, Président Dame. On laisse la parole au Président des Kefal. asalaamaaleykum mbokk Sénégal di nuyu ñi ni déglu ñëpp nekk ci biir réew mi ak nekk ci bitim réew